séparation des pouvoirs tay Sénégal lenn lo xamné nit ñi ngi koy joyantu. té tay li wax assises nationales yi. Mm. ay réformes bi ñu waxone mm. ñu gouverner la gouvernance la gouvernance waaw politique tay amone ay mbébét yo xamné nit ñi ngi ko doon jooyal ak jooyanti. moy mm. manam di xol naka lañu mëna ay pouvoir système présidentiel bi. dana yéeme tey joyantu nañ ko mm-hmm. mooy ñu fexe ba ñuy dindi ci réforme yi mooy mm-hmm. coppi dañu war a indi mm-hmm. mooy le président mu nekk le président de la république mu nekk chef suprême de la. magistrature mu nekk chef suprême des des armées. mu nekk chef parti politique. xam nga loolu yëpp ak tam lu bëri bu ko ŋànkee maanaam dañuy dem ba yow boo moytuwul yow mii nga xam ne ni ay njiit maanaam pouvoir yi. Mm. maanaam da nga ciy da nga ciy. Mm. boo xam nga pouvoir dafa am dafa am dafa am dafa am doole. Mm. bo moytuwul rek manam ni nga wara xam et aussi day permettre ñu am benn autonomie. Hmm. ci bir gestion bi tay dañuy euh yenn banqaas yi nga xam ñoo téye justice. Manam hmm. ni ñuy intervenir. Hmm. fi ñi rôle bi ñu wara jouer. pour peuple bi surtout parce que ñom ñëpp peuple bi mo leen fi bàyyi. tout sen mbiru bop du sen dara mais ñom ils sont là pour le peuple. leena bo deful ndank rek manam pouvoir bob nonu bu ngank yow ci yow bo deful ndank dina tax dina am bo moytuwul di nga jeng. wala di nga jël utiliser ko mu nekk benn ngànnaay. ci loolu te tey loolu la ñuy gën a gis euh, instrumentalisation de la justice. wax boobu moom firndeel na wax nañ ko ci lu bari. Hmm. te te dindi ko maanaam boo xoolee ci lu bari ndax da ngay gis yenn yenn mbir tey dañu xool rek bu ñu jëlee ci armée sax. tey est-ce que ñun tamit waruñu xoolaat. Hmm. tey les même les forces de l'ordre nit hmm. ñi intervenir. mais ñoom xam nga ñoom dañoo nekk ci benn dañ leen dañ leen dañ leen yilif. kon nag ci kaw dañ leen tënk. ci kaw ndigal ak doxalin la ñuy doxalee. léegi est-ce que tamit ñun. Hmm. ñu xoolaat ndax ñoom tamit te ñoom tamit ay sénégalais lañ. amaana lii am duñu ko rafetlu parfois da ngay dégg ñu ne jàmbaarloo am na. diggante hmm. population bi ak ak euh, ñële. Hmm. ak nu mu tudd force de l'ordre yi. du neex ci xol neexul sax ci image. te xam naa ne ñoom tamit ñoom parce que institution dëkk tamit dafa am na muy doxee la ñuy loi. mooy maanaam ñii dañuy gérer lii sécurité bi. sévi mooy la sécurité civile. ñeneen yi dañuy protéger nit ñi seen alal ak seen i am-am du dëgg ak nit ñi ci seen bopp. waaye parfois da ngay gis euh, maanaam ni ñuy dalee ci kaw askan bi. nga xam ne ñoom dañuy topp ndigal waaye est-ce que ñu ñu gënu maanaam delluwaat ba nga xamante ne. Hmm. stabilité la war a am. ci hmm. dëkk bi. Hmm. parce que stabilité ci la lépp mën a nekk. ci la naataange mën a nekk ci la suqali ko mën a nekk. ci la jàmm tey. tey dañoo remarqué ci ci ci contexte yoo xamante ne bu jotee rek.

wax dëgg yàlla damay nawaat sénégalais yi ci ndax keroog. ku waxal yàlla rek. Hmm. xam nga ne keroog dëkk bi fan yooyu ñaari fan yi caxasoo woon na. bu ñu demee ba remme nemmeeku si wala lim ci ay. ñu ñàkk hmm. seen bakken. Hmm. tey da ngay xam ne ne ne vraiment Sénégal léegi. léegi yéeme na lool lool lool li ñuy gis maanaam seddul xol dalul xel ndax euh, procès privé ñëw ba nekk lespace publique mu lëmbe réew mi. war nañ ñu yeewi ba nga xam ne ñu ñu dépassé stade bi euh, tey nag ni mbir yi di doxee dafay xalaatloo nit yi lu bari. ndax dañ koy jël pour mën a néewal doole nit. Hmm. wala dañoo bëgg rek vider question bi pour que nit ñi xam naka la tëddee. Hmm. ndax réellement volonté boobu noonu ndax c'est une volonté manifeste. d'éclaircir la lanterne des sénégalais mooy nit ñi ñu leeral leen li lënt seen xel ñu jiñu ko te loolu tamit lu ñuy sàkku la ak yu demee noonu waaye tey Sénégal fi mu toll report bi gisoo bi ñu nee rek dafay dem ba procès bi mooy dem ba day conditionné sax ñun ni ñuy dundee saa bu ñu waxee ne ne tey war nañ woo war nañ laal kii bi rek rek mu mel ni cin bi day baxaat bu ñu si noppee gisoo bi ñu nee euh, maanaam te aj nañ ko rek dëkk bi newaat tek suñ ko yëngalaatee rek léegi est-ce que ci rythme boobu rek la ñu war a dundee ci rythme boobu rek la ñu war a dundee. Mm, déedéet mm, mm. dëkk bi dafa am yeneen ak yeneen dafa am yeneen préoccupation te loolu te ñun tamit bëgg nañ avancer surtout suñu démocratie. parce que lii buñ si deful ndànk. ci procès bi maanaam dana salfaañ dana yàq lu bari ci réew mi. dana te mi ngi commencé yàq sax. mi ngi commencé yàq alors si yàq bi daal di ñëw exactement sur le plan économie. dañaa des ba léegi si wàllu wu nu mel que ni euh, saa suñ ko euh, yëngalee rek yëf yi daal di jox li nga xam ne que moo di ay conséquences exactement. Mm-hmm. lan leen si xaar. ci wàll économique wala ci euh, wàll. si xaar si nga xam ne que moo di benn fin. benn fin waaw vraiment tey procès bi xam nga maanaam. Mm. dëkk bi yëngatu na. Mm. nit ñi fi mu ne ni kenn instabilité am na te instabilité politique baaxul ci réew. du dëgg te loolu naka la ñu mën a mm. delloo la stabilité. ba nit ñi di mën a di xëy. Mm. di yëngatu di dem di dikkaat te maanaam seen mbir du du du du du am. également du tagga témbe mm. pour que nit ñi tamit ñu yàq respecté ñim seen àq ak seen ci ni ñuy wootee seen nañuy dajale mm. ci léegi nag maanaam dañuy gis ne maanaam dafay am bu ñu nee diw yàkkamti dañ siy gis ne ne parfois day am benn maanaam benn dañuy yàkkamti sax ñu yëngal loolu excité wu ci loolu te loolu dafay am baaxul ci réew baaxul ci réew nit ñi bu ñu demee ba gis nañ ne maanaam yoon hmm. di am jiixi jàq rek baaxul kon yoon tey suñu justice ñu ngi leen di ñaan encore une fois jaax bi fan koy natt exactement. waaw est-ce que nekkul euh, dayoo Ousmane moo toll. waaw dayoo dëgg la tamit tey loolu li firnde dayoo Ousmane Sonko la. tey bu hmm. doon keneen la. Hmm. amaana ni ñu koy geree dina dina dina gaaw wala dina dina am dina am. dina am dina am beneen mais xam dayoo Ousmane Sonko. mooy tax président Ousmane Sonko moo tax. parce que Ousmane Sonko du n'importe qui légui ci rewmi opposant direct à Macky Sall voilà opposant légui nak opposition ak ci kujje djegi bo fa nek ak taxaway bobu nonou hmm. day day am ben djexetal bu maga maga ci du tamit mais lu qui am ba tegu rek. manam hmm. suñuy xel ci dem ak passion. Hmm. bu ci dem ak par. nañ ci dem intelligence. maanaam intelligence si réew mooy mm. maanaam xel liy xelu mm. lay nga xam ne ne day suuxat nit ñi mën a nekk ci anam boo xam ne dañuy tegu ci dëgg di dox yoon di doxal yoon di mm. dox ci yoon di doxal yoon ba nga xam ne ne askan bi ku ne ak foo mën a far ak foo mën a féetoo maanaam yow nii ngay doxee te di nga am wàccuwaay ak gëm-gëm ne ne man sama réew maanaam justice bi maanaam ñi ngi koy doxal ci muy man ak keneen ak keneen ak keneen mu bañ a am justice à deux vitesses loolu déew ñi ko def yëpp manam ci nërme lañ am. nga xamni warul am une justice sélec sélective. lolu dafa am solo ci réew. nak euh dañuy ñaan yàlla li mu jex ci jamm mu jeex si ba ñu étape bi. parce que mm. ñaari at ci ci deuk mm. c'est c'est 24 mois. mais loolu yëpp est-ce que jàppoon ni dafay wéeru rek si éligibilité bu Ousmane Sonko doon sax su nga ko bëgg a jeexalee xañ Sonko ay droit am. Mm-hmm. Euh, conséquences yooyu parce que ñu si ëpp jàpp nañu instant bi si échauffement leen toll mais dugg dëgg dëgg dëgg par rapport ak xeex bi. waaw loolu tamit waaw boo analyser xam nga ñun. maanaam en tant que gëstukat. Mm. en tant que jàngalekat. Mm. maanaam dañuy xool. Mm. analyser. li am. tey éléments yii ñëw tey boo dégloo ñaari camp yëpp. maanaam da ngay gis ne ne ñii dañuy jàpp ne. ñi nga xam ne dañoo féetewu ci waa kër euh, Sonko wala Sonko ak ay ñoñom président Sonko ak ñoom ñoom dañuy gis ne ne maanaam benn acharnement moo am seen kaw. comme dañoo bëgg seen mbër ñoo dañ ko bëgg a néewal doole ba nga xamante ne maanaam éligibilité maanaam la ñuy bëgg a da nekk en jeu hmm. tey boo liiree sax ci xëtu maanaam ñi taskatu xibaar yi seen i journaux yi demee noonu hmm. dangay gis te day ay avocat am sax wax nañ ne ne son éligibilité est menacée ñi ne ne ne Israël di convoquer ay article beneen article sàngam nanga léegi nag ñi fi ànd ak ci président Macky Sall hmm. ci ci ci ci nguur bi ñoom dañuy gis ne ne opportunité la maanaam pour mën a peut-être kenn koo xamante ne c'est un potentiel adversaire te tey boo xoolee opposition bi la figure de proue mooy ki nga xam ne ni moo gën a feste taxawaayam gën a euh, am doole wala am dayo si nit ñi gën a radical ci mm. opposition bi mm. kooku la kon mm. kooku noonu te comme boo demee ci en politique science politique daa ak tamit bu ñu wax Machiavel ki nga xam ne ni mu wàllum politique moom mooy gën a leeru sa oppose sa kujj moom sa wujj moom noo ko mën a def ba néewal ko doole moom surtout boo jekkoo benn fànn da nga naan non nu ma mën a def rek su ma ko mënee sotti ndoxum petit naa ko sama su mu mën a def lu mu lu mu leen rek pour rek maanaam mu war a mën a bañ a bañ a am am fu mu egg parce que kujjee moo laaj loolu. léegi nag ñun analyse boobu lañ ciy def nga xam ne maanaam ci wàllu fànn yëpp. Hmm. léegi après nag bu ñu demee ba taxaw. Hmm. lan la ci Sénégal di gagné dans hmm. tout ça askan bi foofu tamit ay laaj la yu am solo la ndax lii nii lii nii c'est la bonne direction. loolu tamit laaj la ndax askan bi jàppoon ni ñoom peut-être seen intérêt lañ si jiital euh, muy primé si intérêt askan wi. Wow, parfois l'on ngay gis parfois da ngay gis vraiment c'est les intérêts crypto perso moi primé sur